mbokki Pastef fi doon def fële ca ndakaaru ca Kër Massar déglu ka nga xam ne mooy seen kilifa de Ousmane Sonko kàddu yam fa yëkkati muy kàddu yoo xam ne xam naa ni wax jot na wax jot na sëkk ndax fitna mi ngi bay bëgg a boy ci réew mi ci fitna kenn xamu ko ma koy ñeewante lool nag moom Ousmane di ko ñeewante lool ndax askor su nekk da atte mbir mbir bu daloon sa kaw ni mu mel ci yow te boo dégloo ay kàddoom danga xam ne ku ku ku ku sonn la danga xam ne itam ku mbiram jaxasoo la ndax loo xam ne ñi ëpp ci nit ñi tuuma rek lañ koy jàppee ñu ëpp ci nit ñi itam lu tegul fenn lañ ko jàppee bu ñu ko tegee askor rek metti na moo tax maa ngi koy ñaanaat bu baax moom Ousmane fu mu déggee sama kàddu yi mu dollee doyloo yàlla mu doolee doyloo yàlla ci lépp te dalal xelam bu baax a baax te xam ne yàllaa ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci dëgg te doolee santaat yàlla bu baax te xam ne ab jaam saa bu ko yàlla tegee nattu rek bëgg na ko ma yëkkati kàddu yi tam jëmale ci njiitu réew mi nga xam ne yàlla moo ko fi teg muy président Macky sàll dafa mës sa wax ne am na dossier yoo xam ne moo jël tànkam teg ko ba feeñut ndax day xam ne bu feeñee tas réew mi wala bu feeñee fitna am ci réew mi da koy xamal ne ko dossier yooyu mu daan jël di ko teg tànkam de dossier bi benn gënu ko cee kawe benn gënu ko cee kawe ndax bu mel nii mosu fi am te it wax dëgg yàlla day wii privé jàmbur bu fekkoon moo ko def sax nag moom diggam ak boroomam la waaye digganteem ak askan wi loolu war nañ koo xam bu baax a baax bu ma sañoon daal président Macky Sall lépp mu teg ko ci suuf bàyyi jàmbur bii mu doxal ab liggéeyam. bu ñu yeggee ci élection yi ku réew mi tànn ñu xam ne moom la tànn waaye nag na ko xam ne yàlla jox na ko ñu koy déglu ci réew mi te it bu ñuy xëccee ñuy xëcc fitna lay doon bu ëllëgee kon président maa ngi lay ñaan en tant que citoyen di la ñaan en tant que njaboot gu bokk ci réew mi di ñaan nga teg lépp ci suuf te lépp ñu teg ko ci suuf ndax it fitna lay indi bu ëllëgee ndax it Ousmane wax dëgg yàlla bu dee am na ko mu tooñ bu dee moo def tooñu la wax dëgg yàlla yàlla la tooñ bu dee deful itam tooñ nga ko ndax ñaari ati yàlla nga téye ko asgor mënoo ubbi rajo ba mu jeex benn wax te je ba mu jeex te waxoon ci Ousmane Sonko ci doomi jàmbur ci ku am famille ci ku am soxna ci bu ëllëgee ku war a nekk ku war a nekk ci am réew di fa dund sax njaboot yëpp yëg ne seen baay mës nañ koo tudd ci lu ñaaw lu mel nii loolu métti na doy na waar. bañ ko ko yàlla bañ moo tax seede ya kenn du fekkanteeg moroomam te seede bu ju bu juyoo moroomam rek daan ba du tegu moom njaalo kon lu mel noona bañ ko ko yàlla bañ gën noo xam suñu bopp gën noo jege suñu buumi xol moom sunu borom bi subxanahu wa taala mindeef wutiwu ca dara ba cay sonal nit nii moo tax daal bu nu sañoon président ñi ngi lay ñaan bu baax bu bu la soobee rek jàmm am ci. ndax dañuy wax ne am réew ka nekk ca bopp ba bu jàmm amee mooma bu fitna amee mooma kon nag ñu ngi lay ñaan mboolem fitna ju ci am nga nga nga dimbali nu ci dimbali ci peuple bépp dimbali ci askanu Sénégal yépp dimbali ci tam kilifa diine yi dox boobu ba léegi te son lool te am yu bëree bëri yu war a lijjanti tey ñu xam ne njaboot njabootu réew mi dafa am fu nu aju ndax koo gis rek am na ci lu mu tënku kon nag ñu xam ne daal jàmm moo gën lépp may jeexal samay kàddu itam ci sant ku baax ki nu yàlla booleel di Cheikh Mouhamadul taxaa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tam mu ànd ak wér fan yëpp maa ngi dégg ay discours yu naan Ousmane Sonko daa am lu dox diggam ak sëñ Mountakha ba mënu faa yegg nangam nangam loola moom bu amee ca ñami jaar la waaye sëriñ bi tëjul bunt kenn moom seex Cheikh Mouhamadul Mountakha Macky Sall mais Ousmane Sonko mais keneen ak keneen ñoo yem ci moom moom kenn la xool benn bët la am sëñ Touba la koy xool amul jotu yeneen sax amul jotu kii bàyyi kii moom ñëpp la njaboote ñépp la njaboote Ousmane Sonko mbooloo ma ko topp ba sëñ Mountakha jëloon la mu am mu jeex Macky Sall mbooloo ma ko topp ba sëñ Mountakha jëloon la mu am mu jeex kon nag nañu réglé waat suñu taalibe te yoru te yaru te ami teggin te xam ne la Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar waxoon ku yaruwut du yor dara ku yaruwut du yor dara kon nañ yaru te ami teggin waaye sëriñ bi nii la war a def sëriñ bi nii la war a waxee sëriñ bi lii wala war a wax sëriñ bi warut a demee nii ku ko wax rek xamal ni boo ko xamee boo ko xamul sa taalibe yàqu na maa ngi jéggalu ñëpp tey baalu àq ñëpp lii moom dama ne woon faaw ma jottali ko ci réew mi ngir bokk gi nu fi bokk ak xam fi jamono ju toll te képp ku amul xel itam xam na ni fi réew mi jëm bu buñ tegguwul tànk rek musiba mën na fi am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.